Yirmakish mu What did she do for Banjul taxa da nga buka ham xam jigéen boobu lan la defalal waa Banjul Lugilo mooy gor te deretu gor mooy daw si yaramam bi est-ce que yaa ngi maa dégg defalal waa Banjul rek du xaaj du jeex suñ ko limee ana taw bi ñaata politiciens ñoo toog seen kër yi ñaata ba si suñ bi Adama last minute la génna te bu Adama Barrow génnee si motom bi la di dox doxul de doxul de dafa egg si motoom bi di romba ak yi ni di ko romba di dem yaaraadu ma waccot sol di duga tu kër gene ku nek ci negam yóbbu la gambi yaxaay pour bayta la sa añ sa reer sa ndew sa yere ak sa matta everything jigen bu gumon kureka kooku rek ko def ci biir politicien politicien ni rek ngay gis ñuy dem i cooc wow, amuloo ben barke benn politicien lo cooc ba sen soxla sen interest mo tax gars di duga cooc way nga christian yi dofuñ xam nañ ku jub xam nañ ku jubut xam nañ ko moo leen bugg a xam nañ ku leen bañ waaw waaye élection tax na rek yaay gis jullit bi doon dugg a church because of la say self interest kañ la ñooy bàyyi interest bi kañ my sister su ma bëggee rugi loolu lan na def du xaaj du jeex du xaaj du jeex doomi jàmbur bu jooytu dem si office am bi mu fajal la ko xale bu ñàkk school fees nga dem mu fajal la ko ñaata xale la fi la school fees ñaata meer ñoo jooytu dem amuñ dépense amuñ néegi lu waas sax ñu dem rugilo rugilo am na yenn office dafay fees te ba time bu mu lay war a ñibbi sax dafay nit yi duñu ko dee mën gis dafa mission sacrifice mu gis ñu bari majorité bi yow nga ne ngay rugilo lan la def rugilo jigen bu mun yo la yow jigéen nga sax warloo toog di lan def ñu ne wala ñaan yàlla jigéen ñun jigéen yi ñu bari si parlement ñu bari si government bi waaye ben jigéen nekku si government kon ñun xam nga ñun amuñ baat yow da nga war yow da nga war rusu sax di lan la def jigen boobu góor de te ñun dañ ko ko war a fay waa Banjul dañ war a fay Rugi Lo ba mu sakk waaw dañ ko war a fay ana time politicien yi da ngaa gis dëj sa léegi da ngaa gis politicien yaa faa njikki élection dafaa ñëw jot lii mu jot élection dafaa ñëw jot dëj mu am politicien boobu mooy njëkkee si dëj bi ngir kan ngir lan karta ngir karta karta su passé politicien boobu mel ni xamula mel ni xamul yow fan nga jógee danga koo nuyu sax mu laa siiloo fay xam nga li xew waa Banjul na leen def suñ booba mi dox ñu jël suñ kalta bi jox ko ku koy yeeloo moo gën ñu jël suñ kalta bi e di ko jox koo xam ne yeeloowu ko ay bu fi génnee ñu ngay jooy waaye deret dina génn suñ buti dugidoo su fi génnee bii sax ñu coog waaw bii daf ñoo coog ngay laajte yow lan la dugidoo def dama lijjante lu dugidoo def mënuma laa wax yëpp sax